sëñ bi maa lay ziar. cheikh bi maa ngi lay delloo ziar bu baax. si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah yaa ngi jaxaade ci Fallou ñëw sama kër mbokku taalibe rek. koo xam ne moom daanaka comme li may wax rek dañoo bokk luñ mënti séddoo muy Serigne Touba Khadim Rasoul wax dëgg yàlla muy sama xarit ku ne gis na bu yàggul rek lim ma defal jël bis tuddee ma ko kon tey c'est normal moo am xew ma jóge tuubaa ñëw teewal ko ci bisam muy nit ku baax ku am taalibe wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla gan gi. yàlla bàyyi ko fi sàmm ko taxaw ko defal ko lépp ci barke Seydina Mohamed wallaahi. yaakaar naa ne heure yi ci dox bariwul pour Siteu ak Lac de Guiers loo loonu ci mën a wax. waaw lamb la ju neex nag wax dëgg yàlla lamb ju neex la mais benn camp bi wax dëgg yàlla dafa tolloon moment yoo xamante ni xaj na peut-être seen xel daloon na trop mais lamb dafa xaw a doy waar. ci li nga xam ne moom la ñu ci yàlla wan nii lamb ji am na am na ak coppeeku bu baax a baax. am na am na coppeeku bu baax a baax. wallaahi am na coppeeku de. am na coppeeku ci ci géejawaay ci jàmm am na coppeeku ci côté jàmm gën am na coppeeku li ñu leen wanoon ak instant yi li nga xam ne mooy feeñ nii bokkul wax dëgg yàlla ah yàlla nag moo xam dernière décision yi waaye li nga xam ne moom laa ci gis nii moom bëri na ci loo xam ne amaana bu ñu ko defoon mënoon na leen gën a mën a dimbale mais bari na ay faay yoo xam ne bàyyi nañ ko daal mais nag yàlla moom. kenn xamul ay mbiram chaque jour dama koy wax moo mën a wane lu weex ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul waaw wax dëgg yàlla. dañu toogoon ci ndam waa jàmm gan. waaw dañoo toogoon ci lu leer dañoo toogoon ci leer am na lu ñu leen wanoon ñu gis ko mais bari na lu ci soppeeku trop waaw bëri na lu ci soppeeku daal. waaw mën nañ koo xaar mu jeex ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm. waaw am nañ yaakaar mu jeex ci jàmm nag am nañ yaakaar mu jeex ci jàmm bu soobee yàlla yonent bi incha allahu rabbi waaw. mais yaakaar mën naa métteeg ay mitaag ay affaire yooyu. ah non yaakaaruma yaakaaruma ko de wax dëgg yàlla waaw yaakaaruma ko de en tout cas lamb moom dafa doon loo xam ne dafa wóyoo turam da ngay lamb daj lamb doo daj mais li nga xam ne mooy li ma leen wax rek nit moom doomu aadama moom booy wax waxal te yàlla rek tax ci li ñu yàlla sama borom bi wan rek la ñuy wax mu wax ci leneen loo xam ne dañ koy wax ngir suñu teeyu bakkan wala dara waaye tey jii nii bu fekkoon ne tey dañuy da damay jël ne carrément damay jël sama dara di ko joxe wallaahi la azim dana am beneen côté bu ma ko féetale moom dina am côté bu ma ko féete maanaam. dama koy yóbbu géejawaay parce que li féete li ma gis nii li féete géejawaay moo ëpp instant yi may waxe yow nii yàlla nag mën na lu ne. Ah. yàlla nag mën na lu ne. Hmm. waaw mais nii nii nii moom wax dëgg yàlla. Hmm. li ñu gisoon fan yee li nit ñi doon wax ak man li ma gis nii bokkul. waaw waaw. kontaan si yow si. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Modou maa bu baax. Fallou Ndiaye di xewal tey loo ñu mën a wax ci moom. waaw Fallou borom baax la et puis suñu nit la. yaakaar naa suñ dugg si làmb si moom la jaaree mu nekk nit ku baax ñun bi ñuy xewle xamuñu te dafa déplacé wu ñëw Thiaroye muy sama xew ta euh, sama xew sama ngénte taaw dafa déplacé ñëw Thiaroye te boobu Modou Parcelles moo nekk Modou Baye Fall si làmb la nekk rek te boobu ñu mu déplacé yu ñëw kon nit la ku baax ki nga xam te ni bu doon xewle fii bët Côte d'Ivoire sax damay déplacé yu ñëw parce que jiinoo ma loolu quoi. Ah. waaw nit baax la kàddu gi la nit ku dëggu la nit da koo xam lu mënu danaan mënu ko lu mën danaan na ko ku neex a ànd la ku neex a liggéeyal la li muy li muy li muy liggéey moom la lay conseillé mu nekk ku baax koo xamante ni tout le temps balaa ñuy dugg si dara ñu si waxtaan ak moom ñu si xelalee incha allah dañ koy def waaye mm. nit ku baax la ko quoi jërëjëf waaw Fallou taq na waay eh Gallas takk na puudar waay eh eh ah Ndiaye na puudar waay ah dem day bàyyi jiile tarki naa takk na puudar waay tarki sa patron takk na puudar. Taji daa maa ngi delloo ziar bu ngant. daa beneen paquet. waaw bi nga daa jël dafa jeex. loo mën a wax si Fallou Ndiaye. waaw Fallou moom si grand bu baax la dëgg yàlla. maintenant même moo tëgul sax damay jàppale su ma bëri. lamb yi nga bëri yu bëri damay jàppale. même moo tëgul dina yëg xaalisam jox ma. waaw mu doon suñu grand doon suñu waay doon nit ku baax. boo xam ne sama booy bëri liggéey ñoom ñu mel Abdou Moustapha Baye Lat si moom la nekk ci structure la nekk waaw mu doon borom baax boo xam ne lu bëri dama ci conseil bala maa jël làmb damay déggante ak moom na ma defal li defal lii donc nit ku mel bu xewlee noo ma def nga bàyyi sa yitte nga ko tey Siteu Lac de Guiers en tant que seen frère seen rakk nekk ci làmb noo ko gisee waaw Siteu Lac de Guiers di dégg waa Jamaar production ñu ci seen suñu defal leen ko man fa laa bokk waaw di leen ñaanal baax baax baax PDG Mansour Toa Sow ak gars yi nekk yëpp làmb la rek waaw làmb grand contre la dafa xew waaw léegi mën na ci am surprise mën na am de waaw na ci am. mën na am mën na bañ a am. waaw mën na am sama xarit nit ku baax nit koo xam ne lépp lu mu la wax lool la nar nit ku dëggu taalibeeb Serigne Touba te lépp lu mu la wax rek loolu la nar te man loolu laay jàppee nit man nit ci kàddoom laa koy jàppee nit ci kàddoom laa koy bàyyi. te Fall bu ma nee lii la rek man toog naa dootuma jox ndax loolu lay def te kilifa ga doon na wax nit waxi démbam ak waxi tayam buñ méngoo rek jàppal nit a ngoon góor a te moom noonu la mel ko mënuñu lu dut mu am bés ñu ñëw taxaw ko ñaanal ko yàlla ñaanal tut tànk bi yàlla def ko mag mu fekke njariñam defal ko xéewal yu bëri barki Seydina Maam en tant que coach su tey ñaari champion di bëri noo gisee combat bi lak Siteu waaw combat pièce ci la de guerre ndax booy bëree koo xam ne ñëpp nee nañ yaa ko mën bu dee dëgg rek la ñu wax Lac de Guiers moo mën Siteu mais daa am noo war a bëree warul nekk combat bu yàgg warul nekk combat booy daanu xam nga combat bu fekkee warul yàgg kon waxatuñ daanu Lac de day bëre combat boo xam ne risque yëpp ci moom la waaj Siteu amul lu muy gagné ci combat bi tey kon Lac de Guiers waru fa tardel kenn mais nag na ko wóor na Siteu jëlul avance am pour ñëw daanu bu dee ci taay Siteu Lac de Guiers suutewu ko lu bëri man na ko ëpp te bu dee ci xam-xamu xam bëre li ma gis ëppul xam-xam nit ne yaa ko te li nga ko ëppee doole bariwul te ëppoo ko xam-xam mën nga ko njëkk ci combat nag njëkk koo bëre combat yu mag nan na nga ko jox cër bis la boo xam ne ni boo ci daanoo da ngay génn ci làmb de waaw ak noo génn nag da ngay génn bu yàggee sax boo yéexee génn waxuma la nag waaw kontaan ci yow ok mais félicitation. waxal ci ngéntali fi mu ne nii wax làmb bu mu ko wax de. ngéntali man mënoo maa nag baal sa yi waaw mais waxal ci ngéntali rek. mbay Ndakaar. mbay ndakaaru kay loolu dafa leer. ah dégg naa am nga turu bees tàq de mbay ndakaaru mbay ndakaaru ku moom ndakaaru xew fi mu ne nii. Ah, xew. waaw parce que bawol moom naa ko ba pare kon kay ndakaaru laay xëccoo te léegi say jox nañ ma ko mbay ndakaaru. ah boo yaa ngi waaw loolu dafa leer. mais benn tur nga ci a amagoo ci ñaar amagoo ci ñett. non mbay ndakaaru laa am ak mbay bawol. mbay Ndakaaru mbay Bawol mbay Ndakaaru. ba pare leen wax. am na solo tey sa fere teg ci sunu papa Dieye gën ñoo jox ndigal pour ñu ñëw mu ne dem leen ci xew yi waaw man yëgumaan ngéntel ya ah, mais sama papa Dieye ma woo ne ma ngénteel Fallou Ndiaye li noo mën a def nang ci dem waaw moo tax ma gën a ñëw nag ànd ak Abdou ak ñoom Fallou quoi waaw. loolu ma mën a wax ci moom. Fallou Ndiaye nit ku baax la nit ku baax gëm boppam am fulla am fayda nag bañ kenn ko ko yab quoi loolu daal laa xam ci moom mm. ku mu gis jox la sa cër waaw. tey sa ñaari grand frère ñooy bëre noo gis ak bi Lat Siteu. lamb ji ah mais c'est rek waaw ku daan baax na waaw. ku daan baax na ku daan baax na waaw. xalaat nga combat gaaw. mën na gaaw mën na yéex lamb la rek ku ne lii la say mbokk wax lool ngay def waaw. mën na neex comme sa diggante ak Marley. san ah, départ rek. mooy lool. <laughs> Ah. waaw. Cey Mbaye. jaajëf dom day Cey Mbaye Ndakaaru. waaw dafa leer waaw. mais tonnerre loo mën a si Fallou Ndiaye ginnaaw ma waaw maa ngi santaat ñëpp di nuyu képp ku fi teew rek di wax ne fallu Ndiaye moom comme li ñuy wax rek man moom nit euh, buñ ne am nga sa mu waaju te diine mu ngi rek mooy loolu waaw Fallou Ndiaye na nit ku baax la waaw man moom ngénte li tey laa ko yegg torom boo dama ne Fallou Ndiaye mooy ngénte ma ne ko nu ma mën def dem waaw nit ku baax la daal ku am yëg-yëg si doomu aadama waaw ku xeebalut kenn daraam waaw te day son ci man bu baax loolu moo waral sama teewaay Ah, jërëjëf mu daan waaye soxnaam tax na ñu ko. nee na ndax ba ñëpp xam Fallou Ndiaye. borom mu yàgg lool ba jëriñ ay wuy juróom. nee ba lépp lu war ay wuy juróom mu def ko. nee na nag di gërëm ko yàlla ko yàlla sa borom def ab yiw yi nga xam ne mooy gan yi a teew asalaamaaleykum na ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla nee na képp ku fi teew ci jégalu bu baax ci kàttanu daa ñu ngi jégalu bu ci kàttanu amee keneen ku ci bëgg a toftal ay kàddu Matar Ndiaye ni toog Modou Baye Fall ah nee ñuy ñaanal suñu way jubbu jigéen ak suñu nijaay yi toog nee ba ëllëg ñu dem di ko ko de am nee na mu ñoom ñëpp a ngi nii toog bu ñu limee rek dañuy juum a nee na ñu ngi ñaan nee na gan gii ñu fi a ja tey ay nit ñu am valeur ñu ngi nee suñu rakk mi ngi nii toog nekk nit ku baax nit ku am valeur nee na du la wax loolu nee ku la bëgg rek moo la mën a wax loolu fàll mi am na ci wàll nee te loolu mi am na ci wàll nee ndax xamem ak am ñu ñuy waaye yi may dégg kay def ak yi may gis kay def. Ah, nee da ngaa nekk. waaye nag ñi def loolu. mooy ñi xamul dëgg. mooy ñi dul nangu dëgg. nee te Fallou Ndiaye mi nit ku dëggul. nee moom alaaji yàng nii. nee na dafa am bés. nee na du jafe lool ci réew mi ñu ne. nee na daanaka boo dëggoo. nee na dafa am pour lay dëgg.